mbokk seen jotaay kàggu mag ñi nag tey mbokk yi dalal fas yéene dalal tey borom xam-xam euh, di sëriñ Galas euh, Samb Kéemaan moom la ñuy santaat bu baax a baax ci disponibilité ak yombal bi balaa ñuy sore dañ koy daal di jox kàddu gi rek mu daal di nuyante ak mbokku téléspectateurs yi sëriñ Galas Samb Kéemaan salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdu wa sukru mahalillahi wa bi kalaamiya wa bi isaara ihdi muridan yatlubul inaara yaa may yaquudu liyama axtaaru salli ala man ismuhul muxtaaru mbokki Sénégal ñoo ngi leen di nuyu bu baax góor ak jigéen mag ak ndaw te di leen ñaanal jàmm bu baax yéen waa jàmm yi teew yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen ñaanal tawféex bu baax a baax barkeb sëñ Tuubaa Samb Kéemaan lan moo waral ñu la ñu dàkkantele Kéemaan lan moo waral li ni mel. waaw Kéemaan de moom nit ñi ñoo jékki-jékki rek di ma ko wooyee waaye nekkul tur woo xam ne maa ko tuddee sama bopp am sama benn xarit boo xam ne moom de sama xarit di sama rek daa jékki-jékki rek di ma ko woowee bi ma koy woowee rek rek ñaari mu tàmbalee siiw nit ñi di ko wax waaw noonu daal la demee. bu ñu déggee kéemaan mooy koo xam ne ay ay ay mbiram day yéeme day mel ni ay mbiram loo xam ne li askan wi soxla muy wàllum jooni jooni maanaam résultat daal maanaam mbaadu kéemaan gi foofu la tàmbalee. waaw nun moom yàlla dimbali nañu suñu mbir moom xanaa ñàkk ca jot waaye ku ci jot rek da nga gis résultat moom côté boobu moom amuñu benn problème moom waaw képp ku xam ne ñëw na ci ñun lañ ko laaj ñu déggoo ca bu soobee yàlla dana am résultat moom. Eh, jërëjëf mbokk yi sëriñ Gallas Samb Kéemaan yaakaar naa ne mbokk yi ni ko waxee moom ay mbiram li ci bare bari eh, lu tax ñu am nam ni ñu koy wax ci yàqin wala am sañ-sañ dalal ko eh, xëy na fi mu jot am ñoo xam ne fi ñu jot a jaar ak ñoom xamal ni faw ñu mën koo jël ci seen jotaay kàggu mag ñen macha allah ndax lii ñuy wax lii muy def nii sax du li nga xamante ni bëgg na ko waaye lu ci bëri moom jëfam lay bëgg kon nag waxtaan bi dina gën a wéy ci kanam tuuti sëriñ Gallas Samb Kéemaan fi ma jëm directement mooy seet dañuy wax seet ñu ci bëri bëri dañuy wax ni mën naa seet ak mën naa ñaan xam nga tey doomu aadama wala ñaankat bi mën naa euh, li ñuy wax rek ñaan rek lay féetale am ñoo xam dañ naan la seet seet rek lay féetale ñaar yooyu ñu bëri dañu mënul d'accord ni ñaar yooyu mën naa ànd ñii dañ naan la boo mënee seet kay seet rek nga xam wala ñaan rek ñaan rek nga xam yow bëggoon naa nga indi ñu ci leeral ñaankat dëgg-dëgg ndax ñaar yëpp da ko war a làmboo waaw loolu moom mënta ñàkk moom loolu moom mënta ñàkk ndax nit ki moom bala ngaa xam ay mbiram dëgg-dëgg faaw nga seet ko waaw seet gi nag moo lay may bunt ba nga xam fi ngay jaar mbiram ndax kenn ku ne ak fa ngay jaar mbiram bokkunu nit ñi bokkunu ndax kii dafa yor biddiw sawara kii yor biddiw suuf kii yor biddiw ngelaw kii yor biddiw ndox nit ñi noonu lañu wutee kenn ku ne ak fa may jaar ak moom rek man ñaari nit mën nañoo bokk ñëw ci man waaye kenn ku ne mën mën ngaa bañ a bokk ak sa moroom lu ñu lay jox waaw noonu noonu lañuy doxee ci wàllu woowu waaw seet it moom moom képp ku ñuy jëflanteel bala ñoo dox ak yow dara faaw ñu gëstu say mbir seet ko door a mën a xam fii ñu ak yow. d'accord ok foofu sax loolu laa bëgg euh, xam tey euh, tey ci wàllum seet tey am na ñoo xam ne euh, dañ naan la foog nga jox ma sa tur way jur foog nga jox ma nangam am na ñoo xam ne sax balaa ngaa wax dara yow bu ñu la nee jàkk mën nañ laa wax li nekk ci yow mais mais loolu est-ce que loolu lu wér la ndax loolu seet yooyu mu ngi am ba jamono yow doo wax kenn dara nga ñëw ñu wax la say mbir ba mu mel ni midi leer nañ. waaw suñ borom moom moo moo may doomu aadama doomu aadama moom suñ borom moo ko may may may may gu yaatu nu moom seet moom ma mënee nañ ko nu ne bu nu neexee ki ñuy seetal mën nañoo jël turam ak turu juróom bu jigéen même bu ñu neexee sax mën nañoo ba a jaar foofu ndax seet dañ cee yor ay ay ay yu bari waa domaines yu bari lañ yor ci seet. waaw tey képp kuñ ci seetal moom bu soob yàlla danga ci gis sa bopp moom. waaw bari na ñëw ci ñun ñoo xam ne dañ naan dem nañ fu ne ñu seetal leen waaye noonu ku seetal rek jàpp la. waaw képp ku ñu seetal te dana la jàpp moom. Euh, tey su ma la laaj tey euh, tey euh, avenir u Sénégal 2021 bi sa njàngat sa gis-gis 2021 bi nu nu nu ko gisee. waaw 2021 bi moom yàlla dana ci def tawféex waaw 2021 bi moom yàlla dana ci def tawféex te it xéewal ci bari waaye nag képp ku ko man nañ ci faral di saraxe soow waaw soow daal mooy sarax bi waaw 2021 moom am nañ ci yaakaar moom am nañ ne yaakaar ne moo mooy tànn bi weesu waaw yàlla dana ci def tawféex bu baax daal incha allah. Euh, euh, mu mel ni tam euh, tey ñëw nañ ci li nga xam ne comme wax nga ci wàllum seet sa gis-gis ci ñi nga xamante ni tey xëy na léeg nga dégg tey opposant yaa ngi ñii tey est-ce que ngay faral di ñaan ci côté wàllu opposant yi yu demee noonu ak avenir ki nga xamante ni Ousmane Sonko ñu ci bëri bëri ngi naan ah gisuñu carrément que ni euh, ëllëg moom euh, mooy maanaam war na mën a téye gi réew mi no noo gisee avenir Ousmane Sonko yow tay boo doon xool comme yow ci wàllum seet da nga ciy dox. waaw Ousmane Sonko moom am nañ ci moom yaakaar bu baax ndax nit la koo xam ne day dox ci diini di dox ci lislaam te it euh, suñ borom moom ki mu fi andi. mooy ku ko koo xam ne dana amal nit ñi njëriñ te it Ousmane Sonko moom jàpp nañ ne moom dana amal nit ñi njëriñ. am na nga teg ko fan sëriñ bi yow lu tax nga wax loolu. am na yu bari sax yuñ ci xam ci ci ci moom. ci ci ci ci wàllu mbiram ci kanam waaye da ci am yoo xam ne moom nit dana ko xam waaye du am sañ-sañu mën ko waxagul waaw. Mm-hmm. waaw. kon daal moom yaakaar quoi yow. waaw am nañ ci moom yaakaar baax am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax am nañ ci moom yaakaar. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Gallas Samb yaakaar naa ci bunt boobu ci wàllum seet dégg ngeen ko nu mu ko ubbee ci buntu yooyu euh, sëriñ Gallas ma ñëw ci li nga xamante ni maanaam sëy yi nga xam ne day faral di yëngu dañ ko gis lu baree bare tas yi bëri na maanaam divorce yi lan lan moo waral loolu ak li nga xam lan moo war a mën a téye kiir laay ndëgër laayu biir néegu sëy waaw sëy moom la ci jiitu ñaari nit ñi ba la ñoo ànd dañoo war a xool ba xam seen rawaan ànd na wala àndul la ca tegeet maanaam ñaari nit ñi kenn mën na cee am rab wala muy sëy boo xam ne day am ñoo xam ne dañ cee ñàkk ànd bëgg mu yàqu waaye yëngu-yëngu sëy moom yu mel noonu rek moo koy waral waaye insha allahu rabbi koo xam ne loolu dal na la buñ jokkoo bu soobee yàlla dana saafarawu ndax am nañ ci buntu am nañ ci yoon. jigéen bi nga xam ne dafa taxaw nag ku doon am doom amatul ak ki nga xam ne mësta am doom loolu euh, da nga ciy ndax da nga yëngu. waaw loolu moom dañ ciy yëngu bu baax. ndax suñ borom dafa wax ci alxuraan ne am na ñoo xam ne doom yu góor lañu am am na ñoo xam ne doom yu jigéen lañu am am na ñoo xam ne nag waruñoo am doom ku warta am doom nag moom moom loolu mbirum suñ borom la waaye képp koo xam ne suñ borom tudd na ci e, sab jë doom mën na laa ñaanal ba nga am ko incha ndax dañ ciy ñaanal ay nit ñoo xam ne dañoo taxawoon taxawaay yu yàgg ba yàlla defal ñu ci tawféex mais euh, sëñ Gallas est-ce que parfois du tam dangeen bëgg a taxaw place suñu borom tabaaraka wa taala tam euh, am na ñoo xamante ni am na ñoo xam ne dañuy yor sañ-sañ taxaw ni carrément euh, ak boo taxawee ak nu mu mënta doon maanaam damay jëf jëflanteeg yow te su ma la defalee ñaan nga am doom ndax loolu parfois du sañ-sañ. waaw moom de ku warta am doom moom kenn mënu ko ñaanal ba ma am doom comme ni ma la ko waxee rek. nga baal ma yow kii warta am doom tey boo ne ko jàkk nan ngay xamee ni kii xool naa xool daal waaye mënta am doom yër firnde koy wane nam tam sëñ bi. waaw loolu suñ borom moo koy xamal nit ci istixaar waaw suñ borom moo koy xamal nit ci ci istixaar maanaam loolu lu ñuy seet la ci wàllu seet waaw boo ko seetee rek suñ borom man mën na la caa xamal ba xam luy war a am la wala lu wërta am waaw léegi boo ko xamee rek bu fekkee ne lu wërta am la mën nga caa bañ sonn bu fekkee ne lu war a am la boo ca defee rek suñ borom dala cee may ndam waaw mbokk yi ko mooy sëriñ Galas Samb Kéemaan tey yéen a ko dégg noonu ni ma koy waxee rek numéro téléphone yaa ngi noonu di affiché ci baaru écran bi sëriñ Galas fi may jëm directement muy wàllu fay wax da ngay gis kër yoo xam ne euh, problème rek problème suba problème ngoon wala ñi nga xamante ne xëy na ñoo ngi ba dem bay demante ki ay yoon wàllum yoon wàllum tribunal euh, sëñ Galas Samb Kéemaan loolu ndax dañ ciy yëngu waaw loolu moom dañ ciy yëngu moom képp koo xam ne am nga wàllu yoon. boo ñëwee buñ ci ñaanee mën nañ ko bañ a àtte sax moom waaw lool loolu moom am nañ ci yoon dañ ci séq ba ci séq ay tubaab sax mhm. te yàlla dañ ciy defar résultat wax dëgg yàlla waaw loolu moom dañ koy liggéey nit ñi ay miraaran moom ay yooni yoon sax moom ma ñëw nag daj dëpp gi yaakaar naa waxtu bi dem nañu euh, sëñ Galas fi may daane muy wàllum ngóora wàllum ngóora tam nekk loo xam ne dafa lëmbe jamono euh, ñii rabalin tey dañ koy faral di wax ñii xëy na def-def la ñii kenn xamul ndax ci lekki la tey ki nga xamante dafa dem ba nga xam ne dafa am ngóor a maanaam ñu ba ki kàddu gi pour ñu leen wàllum tële loolu ndax dafa am côté boo xam ne boo fa eggee yow doo ko ci dugg wa ilaa yow bu mu mënta doon rek war nga ko mën a saafara. wàllu ngóor a moom euh, néew kàttan moom yii ñoo koy waral maanaam siti dana ko waral jàngare ko dana ko waral rab dana ko waral euh, xala dana ko waral même am na lekk yoo xam ne boo ko dee jëfandikoo na na na nga war a manee ci sa soxna doo doo ko manee waaye képp koo xam ne ñëw nga ci daal ñu ñu waxtaan ci bu ñu la tegee ci aw yoon loolu moom dootu am problème bi moom loolu moom yàlla defal nañ ci tawfeex bu baax waaw am nañ ci ay garab yu yoo xam ne bëri na ñoo xam ne ñu ñu ngi ko jël ci ñun. waaw sëñ Galass dama jaaxal calmant yi daf ciy bëri de ay boo mënee tey suba doo mën euh, daf cee bëri waaye nag ngir faj nit ki ba mu wér plek ndax loolu yomb na. yooyu dañ koy traité ba mu tane. waaw day day am ay traitement yoo xam ne boo ko jëlee. day dem ba ba ba dootoo yëg dara noo bëgg a sëyee rek noonu ngay sëyee incha allahu rabbi te du am benn jafe-jafe. doo am benn jafe-jafe. Ah, parce que am na ñoo xam dañ ñaan la parfois tam euh, sans effet maanaam di jël ay jëfandikoo yoo xam ñu bëri xam nga dañuy dégg tam sañ galas dañuy ragal naan parfois sunguf beeg wala yu demee noonu euh, te nag ñu ci bëri dañ ne ñoom ci côté gàncax bi la ñuy liggéey gàncax moom luy seey la loo nga xam ne du am benn jafe-jafe yow tam bëggoon nañu xam say mbir lan la ndax ci wàllum ñaan la lasara bi la wala ci ban côté la. waaw man garab yi ma ci composé yëpp dañ koy lekk. te dama ciy jëflanteeg ay nit tubaab man sama garab bu ma la ko joxee laboratuwaar bu la neex mën mën nga ko caa dugal xool ko waaw ndax am na kilifa yoo xam ne bala ñoo jëfandikoo garab dañ koy dugal lab xool ko waaw ñun suñ garab yooyu dañ ko ciy bàyyi xel bu baax incha allah. Euh, mbokk yi kooku ma doon sëriñ Galas euh, Samb Kéemaan tabarkàlla yaakaar naa jotaay bi euh, daañu seqat yeneen jotaay ak moom waaye tam bunt bi dafa am solo loo xamante ni xëy na muy suñu jotaay bu njëkk ndax ni ma ko waxee rek moom ay mbiram daanaka mëneetul wax lu baree bare sax waaye tam noo koy forcé ndax fu njëriñ am tam faw ñu indi ko tam askan gi mën koo ràññee sëriñ Galas Samb Kéemaan lan ngay tàggatoo. waaw ñu ngi leen di sant bu baax yéen waa jàmm ji teewi suñu borom defal leen tawféex ba ba mel na seen tur wi ndax jàmmu ñett jàmm boo ko xoolee moo moo mooy Latif mm-hmm. kon nag moom seen sit bi am nañ ci yaakaar bu baax suñu borom dana leen defal feex dana leen defal ak kawe incha allah jërëjëf eh, sëriñ Gallas Samb la eh, kéemaan tabarka la ñu di ko santaat eh, beneen yoon mbokk di ñaan rek allahu bur subhanahu wa taala doolee doole ko defal tawféex ak tay si rek na jaaxa defal ko saxab daa a rek fa seen ki kon sunu gan si seen jotaay kàggu mag ñi numéro téléphone yi ñoo ngi noonu rek di ba affiche baaru écran bi saa su ne yéen a ngi koy gis muy romb noonu kon di nuyu mboolem équipe technique bu jàmm ji info